làmb ji fi mu toll nii kañ la kañ nga jàpp ni depuis bi mu couvre euh, confinement bi amee ba tey diggante jàngoro bi wàcc ci réew mi ba fi mu toll nii ci lan ngay dox ci lan ngay yëngu. waaw maa ngi entraîné jàpp sama naa ndax dama am combat man ak Pape Socé bu Rock Énergie Ouzin moo taxawal combat bi. Ouzin moom moom moo taxaw sànq rek Ouzin mu ma woo. pour hmm. jox ma sama avance mais man maa nekk ko avance bi doo ma ko jox ndax dama am kilifa. muy père baabu hmm. te man du ma euh, joxe bopp ba pare di rocc lamiñ hmm. demal nga jox avance man su ma woowee ni ma avance bi ñëw na nga ma ñëm jëli ko hmm. waaw sànq rek woo na mais maa ngi ci samay entraînement nekk si lu ma nekk incha allah. am ngeen président bu bees muy Bira Sène ginnaaw bi docteur Alioune Sarr demee euh, ban gis-gis nga ko am ak loo koy wax ci mbëri ndaw yi. waaw mu gën a geesu làmb rek. ndax ñun amuñu lu dul làmb. dama bàyyi bay bàyyi napp bàyyi sàmm wàcc sama yaay dëkk ba wàcc sama papa dëkk ba te bare naa si moroom ñëw fii uniquement pour làmb ngir teral si képp ki nga xamante ni si wërsëgam yàlla si ñun la ko jaarale kon ñoom ñooy suñu ay kilifa nekk ci làmb ji ngalawaay làmb ji nañ ñu ko fonkal te li mu dugg see si làmb xaw na dal xel mais lenn rek moo si xaw luus muy ministre Matar Ba. mooy na waxanteeg Macky Sall mu tijji suñu làmb ji nit ñu ñu bëre. ndax ñun Sénégal amuñu lu dul làmb amuñu lu gën làmb. milliards yu ñuy jël di ko def si n'importe quel sport ñu ko defee si làmb léegi léegi Sénégal jëm kanam ndax ñun tey bu làmb xasee am rek jaaykatu loxo yeeg gerte yeeg ku ne mu ngi siy gis boppam. kon nañ ñu geesu ñu bàyyi ñu xel ñun xale ñun ñi kenn ku si ne am nga doole war nga mën a dem defi leneen lu la neex. mais du ñu si fekk mënoon naa jaar ni xëy jaar si gaal yi dem comme ñëpp. mais duma ko def ndax làmb laa bëgg bëgg liggéey nag suñu réew moo tax ma ni damay entraîner pour nekk champion. kon nag ñu ngi koy ñaan. yan bi ko sénégalais yi yan ak axlu làmb mu oyof tool ci boppam.